même hélico yi nga seen nii man dem naa ba Bordeaux fekk benn tubaab bu koy defar monté ci moteur deux chevaux mu naaw man projet yëpp mi bopp bi pourquoi pas ñun ñun lox ma ñun defar deux chevaux sa prend yàlla xam ne billaahi wala loolu mi ngi sama bopp bi defar defar jour xëy ñëw ma defar fi benn hélico wala ma defar fi benn avion mu naaw parce oto bi ma koy defar fii tàmbali fii laa ko tàmbaloon am ñu ko ñu ko ñu ko saboté lii du baax mais man dama gëm may gëm nekk ci defar et puis sax ñooñu sax gën ma jox courage la fait que ñu saboté ko rek ñu saboté ko rek man tam ma mel ne gaynde ci kawam waaw léegi fii moom euh, moteur bi lañ fi def moteur bi lañ def fii moteur bi dañ ko ci derrière lañ ko def soo gisee ñu def ko ci moteur bi derrière nag gannaaw dañoo nekk Afrique amuñ doole non doole ji amul bon booy defar da ngay defar lu dëgër nga xam ne nii pour Afrique la donc moteur bi li ñaan quartier bi amul accès ci suuf si tey soo dawoon ba dal ci benn xeer wala benn brique wala sax même benn bloc moteur bi moom dara du fi yàqu réacteur baa ngi nii lii mooy réacteur bi lii mooy batterie bi échauffement baa ngi nii échauffement bi même ci bi ci kaw la nekk par rapport oto yi xam ne day dikk suuf léeg-léeg mu dagg bii amul bii moom moto côté moto moom da ngay dawal macha allah fu la neex dóor fu la neex dóor ci xeer dóor dóor def dara donc oto bu am sécurité lañ defar fii. saa lu ma bëgg rek moom mi ngi sama biir bopp bi moom. su ma xëyee damay defar facilement man aw ma pour defar difficulté aw ma ko parce que oto boo defee ci trois mois ku mosul defar oto buy daw kooku amul difficulté bi te oto bi incha allah rabbi euh, dañ ma xaar ci beneen naa beneen bu daq bi mi ngi ñëw parce que incha allah rabbi man euh, du ma toogu ma man xaaruma ndimbal eh, eh, kenn waaw xaaruma ndimbal kenn li may def nii man maa ko bëgg sama bopp xaaruma ndimbal kenn maa ngi yàlla def na maa ngi liggéey maa ngi fotal su ma demee ba équilibre rek naa tàmbalaat beneen man naa ko dawal nit daal sama kaw boobu nit daal sama kaw xëy na police yi ñu ngi koy toléré kenn waxuma dara mais su tey bu nit daloon sama kaw par exemple dañu am ah, oto bi ban këyit la am amu benn këyit boobaa damay nekk damay nekk damay tooñ te man bëgguma tooñ te ginnaaw Sénégal la def naa dara vraiment def naa dara war nañ ci mën a jàpp daal vraiment war nañ ci mën a jàpp ginnaaw man li ma laaj bëriwul këyit ñu si defal ma benn genre de këyit ba nga xam ne nii affaire bi dina mën a circuler normal parce que tam boo defaree dara ñu circuler parce que même loolu sax day baax ci image Sénégal la fekk ñu ne benn Sénégal defar na benn affaire tey affaire bi ñu ko dakaar bu faa ñu ko Tamba bu faa ñu dégg ko kii dañuy xam ne Sénégal bi li mu defar nii du fooyukaay